mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen Baye Collé Laye gérante ba di wóyoo ci turu Collé Laye madame bay nekkee ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye da leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escurely placage greffage wala ngeen seen i greffage bu

clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di ngeen fa fekk ay trois di ngeen fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle disponible ngeen mën ko woo ak Kolle laay madame Mbaye ku fi ñaaw Serigne Fass nag fas yéen bàyyi ko lelaay ku ko seet si seet si sa njariñ. My baby got me saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa papa Gaston ma mer ba fut Gaston Mbengue lan nga mer ak kan nga mere mu ne le troisième tigre de Fass Gris moom Gaston Mbengue ma taxawal diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye 2 dafa xëy mere Gris Bordeaux loolee moo waral journal bi xëy fësal ko ci xët wu njëkk wa mu yoraw kaanga mu ne Gaston Mbengue biril Gris Bordeaux père Gaston ana lan moo la naqari mu ne Gris bu fekkee ne mu ngi may dégg am na fu la na ma am ñu nekk ci suuf bëgg a yàq làmb ji boo waxee jàppale président de la république ci biir lamb ji te jàppale ko benn yoon li ñu bëgg mooy tas lamb ji ba mu ne tasar man Gaston Mbengue ba may jàppale président kenn jàppale ko bu dee Gris Bordeaux dañu koy ruux di ko jaay muy jayaxu na ma delloo sama xaalis ci ni mu gën a gaawee moom dafa war a am honnêteté delloo ma sama xaalis bu yaakaaree ne mooy sama plan mooy sama sànni tàccu nax na boppam moom Gris Bordeaux bu ma bëreeru lan la may wàññi bu leen manifesté nañ avenir ci làmb sax nga ne waaw mais Gris Bordeaux bu ma bëreerul ana lan la may wàññi gannaaw moom dafa fixé woon ultimatum comme ultimatum bi jot na ma delloo sama xaalis ña du delloo Gaston Mbengue xaalisam nag mooy Balla Gaye ak agent boobee di Aziz Ndiaye ñoom waxtaan nañoo Gaston Mbengue ba jubóog moom dañuy xaar combat moom Gris Bordeaux moo fi def sortie démb ci observateur wax ne day génn ci combat boobu doon dox digganteem ak Balla Gaye 2 waaye loolee la ci moom moom la concerné bu mu fàtte ne Balla mooy star bi moom la nit ñi soxla waaye bu jàppee ne moom mooy suñu principal adversaire mu Balla Gaye mooy prix bi muy laajte moom na xam ne lamb ñu combat ñàkk ku ñu mën a tëggal combat bés bu yàlla sàkk promoteur yi di ñu woo di démarché ay combat kon nag bu génnee ci combat bi loolu moo fa jaay paañ Pape Abdou Fall ne ca tonn ne bopp CNG bi daal ñu fi président buy jaay lamb ji président bi ñu soxla ci lamb ji mooy président bu crédible président Alioune Sarr na fi jógee kan moo koy remplacer la Pape Abdou Fall xam le mooy amul débat kilifa gaa ngi fi ne le ministre des sports mooy jël ay décision te ñuy commencé di xool kan mooy remplacer président Alioune Sarr ana kan moo leen wax ne président Alioune Sarr na fiy jóge dama ne ak ñuy wax ndax dana fi jógeem du fi jóge moom Serif Atkhana Fall mi fi nekkoon président du réseau des étudiants amateurs de lutte nekk membre comité directeur bu CNG xëy na ba bindub lettre jébbal ko monsieur ministre Matar Ba moom lettre ba mu bind lam cay sàkku mooy arène nationale bi ñu jël ko jébbal ko docteur Alioune Sarr tudde ko ko bile président lim def ci làmb ak fam ko jëlee ak fam ko jëmee mbooleem li mu def ci làmb ci li koy doxal wax jëri Birama Thior wax Baye Naar Fall wax Modou de Sam wax Baba Jaxal wax Ndongolo wax Baye Tafatine wax Pape Sagna wax Frontière 2 waaye bi la écrit mbër dong ñoo ci bëre seen six victoire ya Baye Jaxal moo daan Adidas Baye Jaxal moo daan Adidas bu Kër Massar mbooloo Baye Naar moo daan Toumani bu Caaroy 44 Fils de Sam moo daan Fils de Doubales bu askan bi Ndongolo moo daan Caatu Seras bu Pikine mbooloo Modou bu dee seen coach ba Yoro la mu xamle mooy man je satisfait booyi li ñu waroon a def def nañ ko écurie bi def na liggéeyam sept combats six victoire benn défaite loolu lu baax la jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci ëtt yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen bay Kolelay gérante ba di woy ci turu Kolelay madame bay nekkee ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Kolelay la leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escrit plaquage greffage wala ngeen bëgg sérum yi nuy traité seen i greffage bu wala ngeen ngeen bëgg ay pour defar seen i greffage bu ngeen yegsee ci fas yéen bàyyi ko lelaay seen xol set bu dee yéen yor seen greffage bopp bëgg koy steam daw si leen gaaw da koy defal ci njëg yu xéewal te bu ko jàppee ba bàyyi ko ngeen jàpp lu bees la bu dee da ngeen bëgg greffage nag xeet bu mën di lekk greffage red frisé ba ci semi ondulé original bi ngeen fii fekk ngeen bëgg ay accessoire ngir defar seen i peñe yaa ngi fii accessoire clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di fa fekk ay trois di ngeen fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru greffage yeeg perruque yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci perruque ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle disponible ngeen mën ko woo ci 77 973 49 13 ak ku fi ñaaw greffage rek ci nag fas yéen bàyyi ko lelaay ku ko seet si seet si sa njëriñ. My